voilà asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum ñi leen nuyu di leen caati siyaare ba leen jot boo xam ne suñu site bi 94 Walfu Sénégal seen analyse correct yoo xam ne dañu defal saa ci réew ak bitim réew jaajëfal nañ leen mooy leen def 94 Walfu Sénégal ko saa su nekk ñu leen koy defal fii ci 94 Walfu Sénégal voilà ñu euh, leen di wax sahlan marhaban bi fii bi xeer mizyan alhamdulillah jaajëfal nañ leen siyaare leen ci actualité ku nekk gis ngeen Euh, ku ci mel ni Abdou Mbaw voilà ñu ñëw Cheikh Bara euh, euh, Dolly Cheikh Bara Dolly yor na benn livre boo xam ne nii livre boo xong la voilà wax na nag wax joo xam ne ni patriote yëpp a ci kontaan xam moom gars yi dañuy wax ne daa bëgg a boroxloo waaw dina boroxloo wala du boroxloo ensemble national ba ñu war a demaat ci élection yi pour ñëwaat ci ensemble national boobaay wax ja voilà kon Cheikh war a tas ba pare nag tëj ndax noonu la ko voilà beneen bi des ko moom it wax dëgg yàlla muy fàttali Farba Ngom année yi nga xam dafa daan jaar yu rek wala moom ku mel ne ku moom ensemble national waaye yëpp nag ko yoo xam ne ko ci kii nga xam ne moo di Farba Ngom mu nekk loo xam ne vraiment ba pare wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi koy capté di ko voilà euh, dugal ci internet bi réseaux ci kontaan ndax xam nga moom APR moom di toroxalee rek gars yi dañuy kontaan voilà APR yi voilà kon beneen bi moo di gis nañ tamit ku ci mel ni euh, Abdou Mbow euh, wax dëgg yàlla tey la feeñ waaye mosuñu am xam-xam Sénégal yàgg nañoo wax ni ñi amuñu xam-xam xam bu taxawee ca pincum bu taxawee ci di wax naan ñii dañuy tasse seen gouvernement loolu wax dëgg wax ju yàqu la te euh, xam-xam la wax dëgg yàlla ba pare ko Sénégal yi doon digal am na amul xam na loolu nag feeñ jëm ndax boo taxee ci pénc bi dañuy tas gouvernement euh, Bassirou wax dëgg yàlla xam-xam amu dara voilà kon ndokk bi Sénégal yi jëlee seen nga xam ne nii voilà euh, teg leen fi xam ne ñoo xam ne benn poste bee leen fi bàyyi muy assemblée nationale mën a def danañ waaxu danañ yuuxu danañ faw danañ def lu nekk waaye du teel assemblée nationale bu ñu tasee assemblée nationale nag pour nga dugg pour nga dugg assemblée nationale nag wax ja xam nga tool moom bu demee Thiès jee pour rentrer a dugg na la ca euh, assemblée nationale du yomb de voilà dana xool fu mu jéem yow yooyu wala coow bi bëgg na woo ko kenn du woo voilà comme wax na ma xam ji daal sa waay na ko assumer rek te xam ne wax dëgg yàlla euh, Sénégal bi la woon na voilà a fi yoo xam ne nii doxatuñ ci ak réer dañuy topp ci sëñ ñu def dul noonu dañ ne ah du noonu kon moo tax moo tax buntu yëpp nag fàtt nañ am nañ problème fi ñu toll nii jooy nag bu fekkee dañoo am ay borom xam-xam nekk ci voilà ñoo xam ne amuñu xam-xam amuñu benn benn xam-xam nekk ci biir assemblée nationale bi dafa weqantee ko yooxoo ko coow yi kenn xam jàpp ne doomu assemblée nationale bee euh, euh, waa Sénégal yi nungootuñ loolu noonu waaw dañuy jël ñoo xam ne dañu fa duggee danañ xam lan mooy war a wote mu amal njëriñ Sénégal yi voilà waaye toog ay defal ak di bi ak bëccëg loolu to ñu moo tax ñu bari nañ xam ne bassin jeex na c'est fini dootuñu dugg foofu ci assemblée nationale moom si état kon yaakaar euh, lii nekkoon na li nga xam ne moom lañ doon indil fii ci 94 Walf Sénégal ñu jox leen ba ci kanam.